ku si mel ni maire bi ñuy oowee Momar Soxna Diop Papis Diop maire Tivaouane Paul situation bi yëpp moom moo ko indi tey ndax daf fi fekk suufu jàmbur bu ko tuddee domaine national ñëpp xam nañ ne que boo xoolee loi 64 45 article 1 alinéa 1 ak 2 définir na li bokk ci domaine national ak li bokkul ci domaine national ñun nag li ñu concerné mooy li bokkul ci domaine national ci parti bi nga xam ne que nee ne ñi amoon titre ba pare bokkuñu ci ñi nga xam que tamit bi loi bi doon génn ñoom ñi ngi entamé woon une procédure de régularisation bokku ñu ci yalla def ñu jotta dajalé dajale lépp lu nga xam que moy documentation bu mënoon woné ne que ñun bokkuñu si loolu jot naa gisanteeg papis waxtaan nañu te li ma gënoon a jaaxal il n'a même pas voulu me recevoir au sein de la mairie mm-hmm. alors que man bi ma dama ñëw de manière officielle ak samay témoins yi ma andal ñu albatiku jóge ci loolu bi mu demee ba nangu ne que suuf soosu amna mu ne du musa aboutir parce que famille jubóowuñu ma albatiku ñi nga xam que ñoo ma bindal mandat ma dem gis ñi nek kaya gis ñu nek Tëngéej gis ñi nga xam ko aussi ñoo am walu sanc nek si ñag biñu ñu ñoom malgré procuration notariée bi nga xam ne que defal nañ ma pourtant ñoom ñëpp andando àndandoo ñoom ñëpp a juboo ñoom ñëpp a bokk kàddu bi ñu albatikoo dem déposer ay procédure pour finir suñu ay régularisation dañ fay fekk ay blocage li waral loolu tout simplement parce que maire bi jiitu nañu fa jot choisir ay faux propriétaires jagleel leen suuf si albatiku choisir ay faux promoteurs yi nga xam ne du ñu lenn lu ay complice am mun ci lim ki ñuy oowee Gana Kebe mun ci owé ki euh, lim aussi ki ñuy woowee Alassane Diallo ñom ñoo and manko ak mom séddoo seeni ay pourcentage jël souci, si di si def lu leen neex dem ba melni sax ñom ñoo fa upp doole ñi nga xam ne que les ayants droit légitimes mu nekk lu nga ko aussi malheureusement les procédures au niveau fu ni brigades beaucoup de fa aussi pour la plupart day traîner yaakaar naa ne que toll nañ si fu nga xam que dëkk bu amee loi yoon moom mooy atteint. Bien ñu mais ba tribunal aussi yoon nangul nañu ne que ñun ñoom moom suñu 800 hectares par une requête Nous tàmbali di si jukki ay suuf parce que jël nañ souci si tas ko def lu nga xam ne mënu ko comprendre suñu mag. suñu jigéen Khady Balla Gueye mm-hmm. ndax maire bi daf ko liggéeyloo ci suuf lu toll ci cent vingt ectare te liggéey boobu def loo ko ci lenn lu dul gëm loo ko ne dafa doon recenser suuf su nga xam ne que dina mën a permettre mu mun fa recaser ay sinistrés bi mu albatikoo si la ñu découvriral ñun suñu bopp ak suñu enquête ne que soxlawul woon recaser ay sinistrés surtout ci suuf su nga xam ne am na borom ba pare mm-hmm. li mu soxla woon du lenn lu dul def loo ko liggéey. dugal ko si lu mu xamul dépensé utiliser comme couverture ba nga que day mëna recenser sous en deux parties ñaari hectares djel ay nit dugal len si def len ay faux propriétaires albatiku dem ci état encaissé ci def ci albatiku encore propriété faux propriétaires yoy bokko ak sur des pourcentages di jaay di